li ñu dajale fii tey mooy euh, si politique bi nga xamante ne bi moom la euh, loi may collectivité territoriale mooy euh, mën nañu développer lépp loo xam ne day jëmale suñu collectivité territoriale sa kanam mu di wàllu culture wàllu éducation ak wàllu développement beneen bi it mooy li nga xam ne dañ ko tuddee Compétences transférées. Euh, bu njëkk bi mooy éducation beneen bi culture donc loolu yëpp nous ñu tënk ñu ne si gannaaw euh, école yi ak lycée collège yi mais mën nañu accompagner euh, communauté éducative par par bibliothèque loolu moo tax ñu tabax bibliothèque délibéré taxaw mais il y a ñu ñu am ay partenaires yoo xam ne ñooñu jàppale mu di Plaque Force ak Abeille solidaire Bon, c'est nous ñoom si yéen lañ dëkk si commune lañu dëkk mais ku nekk am na loo andi euh, pour jàpp si loolu nag euh, andi pour jàpp si loolu moo tax projet bi am ñun am nañu yéene am nañu xalaat am nañu xaalis mais nag bu sottee partenaires yooyu ma lim moo tax te ñun li tax ñu bëgg ko def mooy tey bu ngeen gisee ñëpp ñoo xamante ne ñi si Sénégal ak si àddina sax si wàllu culture ak wàllu euh, xalaat ak bind livre parce que ñëw nañu ku mel ni Amadou Lamine Sall Gérard Chenet euh, euh, de Fall ak ñeneen Germaine Ako ñi ñoom ñëpp si commune bi lañ dëkk te ku nekk bi ngay ñëw andi nga livre maye te danañ yeneen i livre yoo xamante ni euh, bu ko xale yi jàngee peut-être dana yokk seen xam-xam bibliothèque bi aussi dana jublu si li ñu tudd internet manam amna xalé yo xamné peut-être ma suñu gis ordinateur mais buñ ñëwee fi nañ leen jàngal nan lañuy ñuy ci ordinateur nan lañ ñuy demee internet pour yok sen culture sen xam-xam donc lool moy li nga xamante def nañ ko suñu yenn nak moy bi fi xalé yi ñëw euh, di jàng bé fi ñëpp duñ fi xej mais dañu bëgg yenen bibliothèque euh ñu def ci dëkk yu bari ay bibliothèque yo xamné au lieu que ñëpp di ñëw fi dinañ man dem ci dëkk yenn té li ñu commencé gis tay mudi ay livres yu bari yu ñu may si ñi fi ñëw ak prix boo xamante ne Amadou Lamine Sall wax na ne dana instauré benn prix boo xamante ne bii euh, dañ koy jox ki nga xam ne moo ëpp lu muy ñëw si bibliothèque bi di ko fréquenté loolu yëpp bu jógee yaakaar nañ ne xale yi euh, mu di étudiants yeeg élèves yi mais ben mën na yokk seen xam-xam ak seen niveau ñun loolu lañ bëgg. parce que ñun li ñu gëm mooy la culture peut être le moteur d'un développement en tout cas ñun yéen suñu spécificité parce que ñi ma lim ñëpp. te ku nekk di développer li nga xam ne mooy si wàll gi nga nekk mooy culture euh, ye loolu mën na tiire yéen mu jëm si kanam ndax ñooñu seen production intellectuelle ak culturelle euh, yéen mën na sukkandiku ba si caada ak cosaan yéen mën na si euh, développement mën na si jaar te loolu la ñu gëm te si lañ taxaw